président peut nommer son cabinet ma nommé ma hmm. nekk man le ministre même si le faut ministre d'État chargé des affaires présidentielles xam nga day am beneen légitimité boo xam ne bokkul ak hmm. bu primature parce que primature dañ ko bind ci constitution or fait président bu ko neexee yaa ngi moom yéen nekk seen bureau yéen hmm. ak moom ak yàlla li ñuy décider yéen ñaar yéen ko xam bu la neexee foofu nga boo defee li nga bëgg ba pare nga bàyyi président mu annoncé soo bëgg defee sa togg sa sa affaire ba mu ñor nga jox président mu yàq kenn du ko yëg kenn du ko xam mais Colin am na fi jamono fii ni meloon Abdou Diouf presque loolu la gis nañ fi Ousmane Tanor Dieng ci fin bi Abdou Diouf presque euh, nguur gi Ousmane Tanor Dieng moo ko doon doxal loolu yàquloon mais premier ministre malheureusement dafa bokk moom moo nekk le chef du gouvernement or le gouvernement est une institution lépp lu mu def dañuy jàpp ne c'est le gouvernement c'est la sacralité du système politique qui mise en moom la ñu xaw a moom la ñuy salfaañee perception boobu bu ñu ko def affaire vue de l'esprit lu nekk la chez les sénégalais article bi mu ko bindee ñi nga xam ne tey euh, man du ma bind article mu ko génne ko te duma ci waxtaan ak ñi nga xam ne rek lecture wala sur la le fond wala la forme. Mhm. ñëpp ñi nga xam ne consulté naa leen xam lu ñu may wax. li ngay wax nii moom la ñëpp di xalaat waaye yow peut-être da nga. da ngaa wax <laughs> da ngaa ba mu ëpp. <laughs> ma ne ko déet walaay. léegi luy solution bi li may def lu jublu rek. léegi luy ah non non non mooy mu rectifié wu rek. def prise de waaw jàpp ne Diomaye mooy président. nag ko nangu et que Diomaye nekk du Sonko Diomaye it Diomaye it nangu ne moom du Sonko moom mooy président de la République. ok eh, ma ne dem warul surtout seen diggante neex na neex boo xam ne ma ne loolu mun na ci indi problème mais il faut que suñu président rek incarner li tax ñun ñu fal ko parce que man dégguma benn yoon sur les questions de fond. président Diomaye président Diomaye Faye c'est Sonko qui fait des annonces c'est Sonko qui prend des ou si Sonko ki di que lii la ñuy def pour man c'est une entorse changer gu ñu suñu système politique. Mm. bis bu ñu delloo ci dualité bi nga xam ne moo amoon taw Mamadou Dia ak Senghor en ce moment bu ba le pré le premier ministre pourra être même élu par l'Assemblée nationale mu am légitimité bu ko permettre moom muy déterminer la politique de la nation ñu bàyyi président bi muy def conférence di dem diplomatie di euh, ñu koy toojal mu jeex mais moment bi ñu toll. ñun on préfère on aurait aimé ñu am suñu président muy Diomaye Faye mu incarner li tax mu nekk chef parce que président bi mooy c'est le chef de l'État oui. il faut pas que dans la conscience des fonctionnaires dans la conscience de l'armée dans la conscience des magistrats ñu sentir ne c'est Sonko moom mooy décider nañ def li nañ def li je dis kenn waru ko sentir est-ce que moo am c'est pas pour rien que la question soit posée et sur la table malheureusement. d'ailleurs bi ñu jàppee Bah Diakhaté pour offense au premier ministre ñu bëri loolu la ñu wax ne offense au chef de l'État lañ daan njëkkee. ñu ñu def benn benn benn dugg ci offense premier ministre gaañ leen déet loolu amul ci code pénal de ñu daw ne. Euh, euh, une ah, personnalité exerçant une partie des pouvoirs du président de la République. Mm. loolu aussi dafa am li tax juge bi dàq loolu. c'est parce que loolu dafa ki remplacer président moment bi président nekkul moo xam président assemblée nationale parce qu'il est empêché. moo xam premier ministre bi nga xam ne président est absent. mu mm. war ko gérer moment boobu looloo tax ñuy wax loolu texte bi loolu tax ñu def ko dañ bëgg ñu jox kooku cëru président. mais pas ki nga xam ne dañ koy nommer non sinon mu yomb le petit fonctionnaire le chauffeur il exerce les missions du président le chauffeur. pour que l'action publique ki nga xam ne moo nekk trésor di fay solde yi. mais li muy exercer loolu président la donc amalgame boobu heureusement que le juge am na maanaam gis-gisu. mu dal xam ne bon fii moom daal bu ñu fi jaar même si je dois peut-être voilà euh, sanctionner naawut beneen bunt bu may jaar quoi. Hmm. mais nag maa ngi koy xaar mais ça si maa ngi leen di xaar parce que euh, procureur defoon na liggéeyam juge d'instruction defoon na liggéeyam maa ngi xaar gaa gaañoo ñi nga xam ne dañ leen bàyyi woon ñu ñu seet seen dossier parce que ñoom aussi. diffusion de fausse nouvelle lañ leen jàppe woon te ba tey seen dossier mu ngi nekk un est-ce que duñ leen woo comme ni ñu woowee Bah Diakhaté. Ah, may leen trois mois wala lu ko mat. est-ce que amnistie bi effacé wul lool. pas du tout diffusion de fausse nouvelle y a des y am na événement yoo xam ne jiitu na l'amnistie c'est les événements du 21 ba avant mais li ko jiitu on a reçu jot nañ fa ay fausses nouvelles yu ne et puis bu fekkee amnistie la. yaa ngi dégg ba jaxati ni man li ma fi def li ma fi wax ci. jamono jooju la hmm. amnistie bi yóbbaale na ko <laughs> ça reste un débat donc euh, entier alors est-ce que taxawaayu premier ministre Ousmane Sonko ci reddition des comptes bi itam danga gis ne ba tey foofu euh, dafay am taxawaayu président. parce que ba léegi président Bassirou Diomaye Faye waxagul ci loolu xëy na ni ñu ko ci doon xaaree mais ku mel ni premier ministre Ousmane Sonko barki démb rek ci journée d'investissement humain bi set setal bi ñu woote woon waxaat na ci ne képp ku yoreel euh, Sénégal dara ci ñi luubal na la leer ne da nga ko fay boobu taxawaay nga gis ne moom la amee ci mbir moom mais pareil yemu ci commencé na par wax ne on va faire le le euh, maanaam justice dañ koy balee on saura qui mooy nommé aux emplois civils comme si moom moo nommé les magistrats comme si la politique de justice moom moo ko redéfinir comme si la politique de répression euh, des délits maanaam et des crimes moo xam financier moo xam économique moo xam euh, délit droit commun moom moo koy définir loolu du ci rëm moom li ñu ko demandé mooy mu coordonner les décisions du président de la République et puis mu exécuter les instructions du président de la République sur la base de ce que le président a décidé loolu aussi wax nañ ko ba pare jarul répété tant qu'on est système dafay nekk en prééminence maanaam dafay bëgg a fës plus que les missions un premier ministre est un primus inter pares c'est le premier des ministres il l'action du gouvernement on en France en France et dans d'autres systèmes le premier ministre détermine la de la nation mieux dafa am ay pouvoir yi président am ci matière de défense parce que moom mooy patron de la défense nationale le premier ministre te mu comme mooy déterminer l'appui de la nation les activités internationales du président de la foofu France premier ministre da bokk parce que moom mooy déterminer politique yi foofu France premier ministre mooy wax ne dañu war a bokk Europe wala dañu war a bokk OTAN ou pas mais bu ñu dem nag cër bi président de la république am na ci mission mais foofu c'est pas un domaine réservé exclusif ñu ngi ko tuddee domaine réservé partagé constitution France moo bindoo noonu su ñu buggee def comme ñun nañu dem ci régime boo xam ne c'est un parlementaire parlementarisme rationalisé. wala li ñuy wax un semi présidentialisme comme en France où le premier ministre dafa am ay pouvoir boppam président de la République am pouvoir boppam balaa nga xam ñu nekk cohabitation mais tant que benn majorité parlementaire moo am doo xam différence bi am entre premier ministre ak président. mais bés bu ñu amee assemblée nationale boo xam ne dafa wutee ak majorité président de la république mm-hmm. en ce moment premier ministre day taxaw nekk le patron de la France ci domaine yi nga xam ne mooy gérer administration bokkul ak Sénégal Sénégal quel que soit alpha président de la république mooy nekk kilifa premier ministre. Mm. noonu lañ bindee suñu constitution loolu mooy ci forme bi maintenant dans le fond ànd nga ak ñoom ci réduction des comptes bi ak li mu wax ne moom la ñu ci nar def. xam nga nguur gi fi mos a taxaw li ngay njëkk wax mooy réduction des mais réduction de compte à part de quand et sur quel compte aussi la war a def réduction est-ce que dañuy def maanaam euh, dañuy def de manière exclusive ñëpp exclusif lépp ak ñëpp wala ndax dañuy tànn ci d'abord domaine yi ñu koy def ndax dañuy tànn période yi ñu koy def ndax dañuy tànn ñi ñu koy defal loolu moom bu amee rek yore aura un hiatus mais tout démocrate tout républicain war nga nangu rendre compte war nga nangu ñu indi politique u reddition des man damay supporter politique de réduction des comptes pour ku mës a gérer affaire état mais aussi ku mës a laal ci affaire état exemple laa lay jox yaa ngi dégg ñu ne le foncier y a des problèmes ñu commencé naan on va regarder une commission mettre en place une commission qui va regarder ah euh, l'affaire du de, de, de, domaine public maritime mais nañ ko commencé 2020 xaw ma 2000 nangam lu tax duñ dem ba 2000 2000 temps euh, wala lu tax duñ dem ba depuis 70 Abdou Diouf bu fekkee lu dëgg rek lañ bëgg parce que dafa am ay. parce problème foncier commencé wul tey commencé wul dem. bien sûr surtout que ñëpp yëg nañu fii ne waa impôt inspecteur des impôts yi syndicat bi nga xam ne Sonko moo ko jiite woon syndicat bi nga xam ne yi jiite na ko mais dama ne ñoom waxtu gaañu di daggee suuf di ko euh, di ko di ko lotissé dañ lay jox seen wàll mais ñooñu lu ñu xool lu tax ñu jox seen wàll yeneen fonctionnaire lu tax jox leen seen wàll lu tax ñoom ñu accepté ne ñoom war nañu am sañ-sañ ñu leen di jox. que ñeneen ñi am sañ-sañ jox leen surtout que kiy